salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di sant yàlla bu baax bu ñu fekkee jataay bu mel nii di nuyu sëñ Morlo ak si yàlla ak capitaine Kayta nuyoo boobu bu ñu ko tegee seen loxo danañu ko jottali ci mboolem kilifa yi nekk ci jataay bi muy waa marché ak waa garage bi ak waa police ak ñëpp rek. ñu yëngatu ci lépp ñoo xam ne li ñu yëngatu lu jëmee réew mi kanam lu jëmee dëkk bi kanam moo leen tax a jóg ñoom ñëpp ñu ngi leen nuy di leen sant euh, sëriñ Mor bala may ñëw ci lii yéen ñi nga xam ne yéen féete ci wàllu maire bi ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ndax dañoo gis ne am na méthode bu ngeen jël léegi di ko doxee. boo xam ne bi ngeen ko tàmbalee léegi réeroo yi daan am seen diggante kuréel yeneen yi yëngatu yi ci bari amatut ndax yi réeroo am ñàkk waxtaan moo ko daa waral ñu toog fee di def bëgg nangam yéen ngeen toog bëgg nangam ngeen bokk lu ngeen bëgg waaye waxtaanu wu leen ba xam li ngeen bëgg lan la kee defe ne la muy def kee da caa dugg te ci war a caa dugg kee defe ne la muy def kee da caa dugg ci war a caa dugg waaye yéen ñi nga xam ne yéen la fi askan wi te ngeen war a jàppale askan wi yëpp bu ngeen jógee di def waxtu wu nekk lu ñu war a waxtaanee ngeen woo ko bu ngeen wootee ba noppi dajale waat ñi ko war a seqal naa ne bu ngeen ko tàmbali léegi bari na réeróo yu xam ne wàññiku na kon leen ci félicité di leen ñaan ngeen gën ko jëmale kanam ci noonu nga ko waxee tamit lépp lu ngeen ci jël engagement tamit ngeen fexe ba wàcc ci terrain bi ba ñu ngeen ko jël ci ñoom ñu gis ne lii ngeen jël ci ñoom la ngeen ci man lépp def ngeen ko ci lu ngeen ci dufin ñoo xam da ngeen ko télé waaye yéen a ngeen ko ndax nit ki bu man rek dañ ko jéggal la mënut waaye ki man dara ñàkk def rek moom lañ mën a xam ba noppi moom la moom lañ mën a xam kon nag lépp lu ngeen ci man ba def ko rek la ja des askan wi ngeen ko seqal danañ ko xam ndax yéen dëgg la administration ngeen fi nekkal waaye nag ndigalul sëriñ bi moo tax ngeen nekk fi ni ni mu tax ñun ñii ñu nekk ko ci jumaa ji daayira Moukhaddamatoul Khidma ñeneen ñi ci des ñëpp kenn ku nekk fa nga nekk bu la sëñ bi ne woon nga nekk tas ko bu subaa du ci xëy kon mel ne ndigalul sëriñ bi moo tax ñu ciy xëy ak lu ñu mën di doon ndigalul sëriñ bi la kiñ ci fal ngir ndom ndomba tànk ci adduma dekkare sax bu la sëñ bi ne woon nga bàyyi kon lépp ndigalul sëñ bi la delluwaat lii ngeen woote tey nag muy setal lu jëm ci marché Ocass di mbir mu am solo ndax ni nga ko waxee fee ci jumaay Tuubaa ak ci bàqan margo bi ñun ñu ngi ko fay def waaye ku ne xam na ne maanaam wàllu set dafay doon lu jafe doon lu diis doon lu bari ay moyen yoo xam da nga koy def lu jafeeñ mm-hmm. tax na daanaka waxtu woo teggee sa tànk rek mu mel ni mosoo def dara mbalin moo mel noonu da ngay doon looy def ànd koog moom bañ a tàyyel soo continuer rek da nga gis ne lii ngay def nii dana am njariñ ma ma jëlale marché occas ñu ne dañ koy setal par nangam waaye la war a am sax bu amoon dëgg dëgg dëgg setal gi mën naa gën a jege. setal bu gënoon a jege dana gën a yombal nit ñi diñ koy tëjee sax mu waa ko dana gën a yombal nit ñi ci lu bëree bëri mën nañoo fexe ñi ko yor di ko nos te ba ba ba muy gën a jege nii ngeen wax léegi nag. yokk jumtukaay yi nga xam ne ci la ñuy def mbalit ma bokk na ci li yombal set ndax nit ñi nit ki moom bari na koo xam ne dafa amul fu mu def mbalitam moo tax mu teg ko ci mbedd waaye nag am na koo xam ne tamit daa tayee dem ci poubelle gis fu ko def comme yaar yëpp boo xasee am nga xam nga gis nga poubelle ba ñi ñi bëgg a defar ñëpp buñ fobee def ko fa kay ñëw di ton ni day yombal liggéey ba ko defee dana yombal bu ko defee lu mel ne marché nag nga xam ne dafa day waar ndax li mën a uh, uh, tëj yenn barab yi ba nit ñi duñ fa jaxasoo ko ak marché marché moom boo ko tëjee mooy nit ñi tëj leen place fii yaa ngi tëj place yi mënoo séparer nit ñi kon nag waxtu wu nekk la ca war kon nag waxtu nekk la ca war ci ña ko yor ñu ko war koo doxal waxtu nekk di ko bàyyi xel di ci def lañ man dana ci baax ma gis na tamit wërta yem ci marché Ocass dong war naa fexe ba marché yeneen yi nekk ci dëkk bi di marché yu mag yëpp ñenn ñu nekk moo xam commune bi ko organisé waaye ña fa nekk ñu fexe ba coordonné leen ba la ñuy seetal ci marché ukaa ñu koy seetal ci marché yooyu ndax jàngoro ji dafa sew xeebul fu mag xeebul fu ndaw kon nag seetal gi bu dul jàngoro sax dafa war ndax nit ki bu amee ak set rek wér yomb la boo amee ak set ci ngay tax nga mën a jàmm yàlla sur borom ndax lislaam ci boppam sax bala nga ko mën def da ngay set kon nag sa adduna gi ba ngay mën a fàggu ci moytu ko wér euh, ak wér di day fekk nga set loolu lépp dafa bokk ci li war a ànd ak dundu doomu aadama waxtu nekk li ngay def mu ànd ko set kon nag lii ni ngeen ko taxawale ci marché bii na ngeen fexe ba marché ba ak bépp jataay boo xam ne ay nit dañuy fekk fexe ba di fa dajaloo te dajaloo gu mënta ñàkk ba ngeen xam ko ñu fa yéene ba coordonné leen ba waxtu nekk ñu fexe bay seetal barab ba bu ko defee ña ci seen wàllu topp ci la ci lañ ci war dindi ci jàngoroog lañ ci war a dindi yëpp ñu mën koo xam noonu ngeen ko waxee nag ci marché bi rafetlu nañ ko ni ngeen ko waxee ci garage bi rafetlu nañ ko waaye bu mu yem foofu fi bépp barab boo xam ne ña ngi fay daje rek na ngeen noonu ndax bari nit ñoo ba ñu ñu dara dañoo leen ñu di def ñu gis ci seen bopp bu sa bàyyee danañ mën a ànd ak yow def ca loola te loolu nag yéen ñii nga xam ne yéen nekk ci fii bari na loo xam ne yéen ko man keneen ku ko defoon day doon loo xam ne du waree fam bu ngeen ko xasee coordonné nit ki ba xam ne lii la bëgg dana yombal ñoo fa fa nekk danañ mën a yombal loola mu gënam di sant kayitam yi ndax fi ñu toll ci jumaa ji ñun lii muy def nii dikk ñu ko pampal bi ci njëlbeen dañoo demoon ba li ñuy li ñu koy soxla bari waaye ñoom dañoo jël ñun ay nit ñu formé ñu leen. ñu formé leen nga xam ne fi ñu bu ñu leen gisut léeg dañu julli ajum ba def la war a def jënd suñu produit def la ñu war a def loolee nag fi ñu man nag gis naa ne warut a yem ci lu mel ne jumaa ji hmm. marché yi war nañu mën a fexe lu mel noonu nga xam ne waxtu nekk buñ buñ buñ toogoon ba yàgg ñu ne ajjuma ji kat dañuy teel a wàcc buñ julee ba ajjuma fekk wàññi ko na li des ci ajjuma dañuy xëy buñ julee ba noppi na ñëpp gont ci marché ñu seetal ko bu guddi ñoom ñu wut seen i ndaw ñu pomp ko mu féete boor loolu lépp organisation la laaj ay pexe laaj yoo xam ne dana dem ba yomb ba ni ngeen see bëgg ngeen man ko te boobaa tamit ni ngeen di liggéey mën ngeen ci fexe ba produit yi ngeen di am ko am ndax kon ku loo xam ne ñun ñi li ñuy consommé ci jumaa ji ci pompe jugul loo xam ni ñu jox nii waaye loo xam nit ñi xam ni bëgg nañ lii ñu ñu yëkkati suñuy moyen keneen yëkkati moyen ñu boole ko ci lañ cay defee boo dana tax li ngeen ci bëgg bu jàngoro amut sax mu mën am ndax am na yoo xam ne waxtu nekk bu dul jàngoro yi xew sax day dindi micro micro bari na ci ñu am jàngoro yoo xam ne yóbbu ko seen kër te ki xëy ci marché bi bàyyi njabootam këram lu mu jëlee ci marché bi bu yàggee dëkk bi yëpp lay daj kon ñun ñëpp nañ maase fàggu fàggu ci barab yi jullukaay yi barabu jaamukaay yàlla daju ba dajukaay yëpp bépp dajukaay bu ñu dajewoo daal ñu fas yéene fa sàmm loolu mooy li gën a gaaw ci xeex jàngoro ji jàngoro ji moom la ca njëkk mooy Cheikh Mahamadul Muntaxa mi joxe ndigal bu dara amutoon joxe na ndigal yi def leen lam joxe lam joxe ndigal nañ ko def laneen am la ca ginnaaw suñu nekku ca ay taalibe lañ yoo xam ne sëriñ bi jox nañu ndigal li ñu sëriñ bi jox ndigal ku ci gëmoon ne tey jii muñ doon baamoon ñu jëm ci dëkk bi sëñ bi ne la karkoog sabakkan nga karkoog sabakkan bu rek ci dëkk bi ku gëm-gëm boobu tamit dëgg ci yow su sëñ bi ne takkal masque yomb na raxasuñu yombal defal nangam yomb na li ñu sëñ bi wax lépp dafa yomb te dara diisu te sunu maam yi lu diis lañu li sëñ bi tegoon yenooy fii gaal jëm ba gànnaar ñu lay dajale ñu lay dogale ay bën di lay dajale ay nangam di lay dajale ngay jaar ci dëkk ak dëkk ba fent ba fekk suñu tubaab gànnaar loolee takkal maska ko gën a yomb raxasoo ko gën a yomb te loolu lépp ko sëriñ bi wax jëmmam taxu ndax ma ma ngi koy def soowe boppam soowe ñu moo ko tax jóg képp koo xam ne jóg nga nag wéyee ndigalul sëriñ bi na la leer na la lay faj nangu ga nga wéyee ndigal di ko jëfe moo lay faj ci doo ko yëg waaye sëriñ bi nekk ca nekk digle lam digle ba na yow lim digle da ngay mel ne a nangam am murid yi moom benn baat lañ mas a am muy ci fi nekkal sëriñ Tuubaa jamono dem na ba nag am na ñoo xam ne dañuy wut seen i beneen baat yu ñuy am bu sëñ waxee ba noppi ñaan sëñ bi lii la waroon wax wala lii la waroon def loolu lépp du jikkoy taalibe du jikkoy koo xam ne sëñ Tuubaa rek kala ñor ngay dund murid koo fexee rek dañ koo waxal ak wax ko loolu lépp sa yoon bu mu ca nekk gannaaw moo ko yëkkatil boppam rek jàpp ne moo ko yëkkatil boppam ndax sëriñ bi demut ci mbedd mi demut ci marché yi demut ci jumaa la fa nekk dañuy dikk wax ko ko lu ci dal xelam ba wax ko rek jàpp ne moo ko wax ka ne waxatu ko ndax amul doolay wax ci jumaa ja nañ tëj bunt yi wala nañ def nangam ka ca marché bu doole sëñ bi am doole lenn lu ci nekk sëñ bi waxtaan ak ñooñu ba nangu ko jël dogal ba kon nag loolu nag gënal sëriñ bi foofu la nekk nekk looñu fa buñ fa nekkoon ba tey jàngoro jeex na ci réew mi ñun ñoo dëgër bopp rek buñ fa nekkoon ba tey lépp jeex ma mag mu tal ne sëriñ Muntaxa egg fi mu egg suñu borom toog jotaay Seex Xaadim bëgg mbir wax ko génne alal def ca jëmmam foo ko seen mu nekk ca loola yow nangoo tere fa nekk te doo def li mu wax boo ne tëli bi laa tamit war ngaa xoolaat sa bopp xam ne seytaan yi ngi lay liggéey sëñ Muntaxa bari kersaam ji ak bari yaram bii ak tegginam yii ak pëstéefam bii bu mu ñu nax ba fii may wax yow moo fi jëm Sëriñ Tuubaa comme ngërëmam am ngërëmam Sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh